li ñu seetlu ci jamono yi mooy ñëpp dégager nañ seen responsabilité si ñii ñu doon wax baroom njaboot yeeg baroom kër yeeg baroom soxna yeeg baroom dëkk beeg ku ci nekk daanaka say responsabilité teg ci suuf looloo tax dëkk bi mel nii mu mel nii deret bi tuuru wet ne musiba yi di am wet gu ne loolu nag la ko indi mooy teggaku li nga xam ne moom lañ ñu teg te itam ñàkk xam liñ la sas lan moo la ciy xaar yawmal qiyaam loolu dafa am solo ci mbir mi mbokki jullit dëkk bi nag dañuy ñaan yàlla suñu boroom di fi def jàmm képp koo xam ne yaa ngi fiy xëccu dara génn nga sa kër sa kër am na lu la fa war dégg ngeen ko léegi say soxna am na lu la war ci ñoom dégg ngeen ko léegi say doom noonu lépp luñ la dénk waaye bu dee réew nag xam ngeen am réew du du yomb am réew ku ñu koy yan yan nañ la yan boo xamee ne ah diis na diisaay goo xam ne pour nga génn ca du yomb leneen lu dul am réew lu ca toppal lu ca toppal lu ci topp lu ci ne ku koy xëccu na nga seet jàngal lan mooy mujj yow mal xiyaam ñun nag loolu sunu yoon nekku ci yen ma yen ma rek. takkal mag ndomba rek lañu waaye nag ndomba googu yowmal xiyaam ñu taxaw di la laaj di la càmbar lii tey ñuy xëccoo te lii ñuy dégmal incha allah ñu ñaan yàlla suñu boroom def si jàmm ngir yàlla naka ñépp a ñaan loo ndax jàmm loo ca am doyul fitna lu mu tuuti tuuti tuuti bari na amul benn fitna bu tuuti ndax fitna ba tuuti moo mën a tàmbalee fii wir àddina kon amu ci dara loo xam ne nit ki war na koo woyofal kon nanu ñaan yàlla jàmm Ibrahim ba muy ñaan ca dëkk bële dara amu fa ijal hada baladan aaminan la jëkk a wax balaa wax wërsëgal leen ay samaraat muy ay meññet ak i xéewal dafa jëkk ñaan kaaraange ba noppi na aaru ba noppi yooya bu ñëwee mën a jariñ waaye pétrole bu nekk feeg nangam ak nangam mu ñëwee fekku fi jàmm na fekku fi kaaraange musiba lay doon moo tax loolu lu jëkk wax gis nga fataana gi yonent yi di am boo doon ñaan di ngay jëkk ñaw rek di ñaan ay pétrole ak ay oor ak ay urus te fàtte wàllu kaaraange am réew bu amul kaaraange lu fa nekk ci koom musiba la kon nag loolu la jëkk ñaan bala dan aaminan la jëkk wax kon kaaraange am na solo kon nag ñuy fàttali sunu boppa di fàttali képp kuy xëccoo responsabilité yu mel noonu nga sóor yàlla nga natt sa boppa ndax mate nga ko wala déet ci yàlla nga koy natt ak ab yonentaam déem ab jullit nga laa wax ci nattukaayu diine nga koy natte looloo tax sallallahu alayhi wa sallam démb ba mu jiitee dafa xam ni bu baax léeg-léeg nit ñëw laaj ka mu ne la laaj ka mu jox la ci fataanaam ak ak yeewu teem ñuy xëccu nag moo xam doon njiitam réew la moo xam doon député la moo xam leneen la lu mu ci mën a doon sóoral yàlla te xam ne ëllëg di nga taxaw ci kanamu borom bi mu laaj la say dossier la mu la dénkoon ñu jiital la si noo ca def loolu nag sallallahu alayhi wa sax demoon na ba seet lu nit ñi daawu leen nangul kuy xataraayu di ko laaj foofu mu toll mun koy laaj dañu jële ci xadis Abdurahman ibni Samura radiyallahu anhu qaala qaala lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa abdarrahman ibna samura laa tasal il imaara fa innaka in uutiitaha an masalatin wukkilta ilayha wa in uutiitaha an gayri masalatin uinta alayha nee ne yow abdurahman ibna samura bul masa laaj mukk ñu takkal la ndoom ba nga jiite bul masa laaj pouvoir ndax booy xëccu di ko laaj di xataraayu di ko laaj loolu day mel ni kon am na loo ciy ut bànneex bu nëbboo ngi fi dafa mel ni loolu jëmmi loola moo la tax a jóg waaye defoo ko pour liggéeyal nit ñi wala jariñ nit ñi yow daal mooy mooy mooy sa sa bëgg na ay saabaam bu baax mun waaw nee na ndax boo xëccoo xataraay utal ko sa boppa yàlla bàyyilaat sa boppa dala koy jox ba noppi seetaan la te yonent bi sallallahu alayhi wa da daan wax naan ci ay ñaanam wala takilni ila nafsi yàlla bu mu tarfatal ay ne génn géndeeku rek bu ma bàyyeeg sama bopp ndax boo ma bàyyee sama bopp benn yoon rek du tel ni xepp ak rek alku kon nag mandat yi lëmm buñ la bàyyeeg sa bopp nooy def yonent bi tarfatal ay ni la wax mandat bi bàyyi la ak sa bopp yàlla di la seetaan ndax yaa ko doon xëccoo seetoo ndax mate nga ka walla matewoo ka maandu nga wala maanduwoo jox leen ma jox leen ma ñu jox la bàyyi la ak sa bopp nee na nag bu fekkee ni nit ñi ñoo xool ba seetlu ci yow maandute seetlu ci yow xam-xam lii ñu lay jox man nga ko ñu yëkki ka jox la ko yàlla dimbali la ci jàppale la kon nag ku yabu yar sa bopp bala ngaa jël lu mel noonu ku yabu xool sa bopp bala ngaa jël lu mel noonu ñu jëlewaat ci abi musa al ashari radiallahu anhu qaala daxaltu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ana wa rajulaani min qawmi fa qaala ahadu rajulayni amirna ya rasul allah wa qaala al axaru mithlah fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna la nuwalli hada man sa'alahu wala man xarasa alayhi mu ne man abu musa al ashari dama dugg ak sama ñaari mbokk ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaw ma woon ne sax dinañ fa wax loolu kenn ki nekk ya rasulallah takkal man domb jiital na maanaam jox ma pouvoir ki si des waxaat lu mel noonu yoneen bi ne dem na ba yàgg ne leen man lii du ma ko jox ku koy laaj lii du ma ko jox ku koy laaj sallallahu alayhi wa xam na xam na li mu jiite lan la ku seen xam na yaay kan moo tax ci xadiisu abi hurayra radiallahu anhu ba lañ cee ñëw dafa ne du ma ko jox ku kay laaj te du ko jox ku ci xër naa laa nuwalli haada man saalahu wala man xarasa alayhi lii de du ma ko ménga duma ko jox mukk koo xam ne xir na ci ak koo xam ne da koy laaj taxawu si nit ñi ak koo xam ne di ci xir lool ndax ki ci xir lool tuuma da ko toppa ndax da koy jaral lu ne dina ko jaral jaay àllaaxiraam ngir am dombagoo ngir ñu jiital ko dina ko jaral jaay diineem ngir ñu jiital ko dina ko jalal tuur deret ngir ñu jiital ko dina ko jalal corruption laanallahu raasi wal murtasi wal raïs nga xam ne mooy gànnaayal gaa ñi lu gën a bari ci ñoom muccuñu si loolu képp koo xam ne yaa ngi def corruption ngir àgg ci mbir boo ca àggee baaxul ci yow ndax da nga dimbandikoo lu araam ngir àgg ci lu daga yàlla du ko nangu yàlla kenn du ko jege li muy tere li mu digle lañ koy jege boo waree gaal gu xaraam ngir dem fu dagan yàlla këpp sa soxlaawul ci yow dara bul si la lay wax loolu ci lépp nag bu kenn dimbandikoo lu araam ngir àgg ci lu dagara kon ko xoo xam ne sa ndomba ci mooy yàlla lañ la ko takkale jàppeel ne yàlla dina la bàyyeeg sa boppam matewoo ko waroo ko woon laaj ëllëg yowmal qiyaam dina metti ci yow lool ñu jële ci abu hurayra radiallahu anhu mu wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innakum sa taxrisuuna ala imaara wa sa takunu nadamatan yowma alqiyaama fa niamati almurdia waa wa bisatil faatib bi ni Abu Hurayra yéen day samay xeet sama xeet bii di ngeen mës xiir lool ci pal pouvoir bëgg pal bëgg ku la def président bëgg ku la def ministre bëgg ku la def député bëgg ku la def maire ku li jiital ci dëkk ngay lu ne mu ne loolu di ngeen ci mës a xiir te xiir baaxul xiir mooy tax noo amee baax na loral ku ne pour am baax na jaayal sa diina pour am baax na jaayoo sa àllaaxira pour am baax na nee nag ni amatul murdia nee na nàmpal ga dina neex ndax bu ñu la takkalee ndombal tànk gi li anna maahal maala wal jaaha wal lazaati al xissiyati wal ndax bu boobaa àllal day tuuru ci yow sa daraja di to di gën di yokk foo jaar ñu xàll nit ñi loo joxoñ ñu dagga loo wax ñu def boo ne xalangu leen si mbedd ñu xalangu ci mbeddami mi yooyu yépp loolu yónneen ne mooy jamono yi nàmpaga dina neex waaye wa bisatil murtad Fatima ne dina metti lool ñaaw lool jamonoy feral ga buñ lay fer mu ne fii ci àddina dañ leen di nàmpal yéen borom ndombay xéewal yaa ngi saawaan baawaan te nag ibnu ataillahi waxoon na ne xaf من دوام نعمه عليك وعدم طاعتك له أن يكون ذلك استدراجا منه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين moytul xéewal gu dëkk ànd ak mooy yàlla ku dëkk booy mooy yàlla di am xéewal toujours mu ne tiital boo tiitul nag da nga naan rabbi akraman mhm. sama borom daf ma teral di xool nit ñi bëtu xeebel te fekk mu ngi lay jay daf la bëgg a jàpp képp koo xam ne saa yoo bëggee mooy yàlla roof ci sa poos gis loo ko mooyee génn def ka si mu ne loolu boo ko gisee ngay gën di mooy yàlla bu di la ubbil bunte yi mu ni tiital mu ni tiital waaw falamma nasu ma zukkiru bi fataxna alayhim abwaaba kulli shay xatta ida farixu bi ma utu axasnahum baxtatan fa ida hum mublisuun fa qutia daabiru qawmi ladina ba ñu moyee samay wax jalgati mu ubbi leen bunti xéewal yépp xam nga jinax boo bëggee toj bopp bi da nga koy tex li tegal li mu bëgg kii yàq sa mbuba di koy yàq fu xam ne mënatoo kaa defar bu yaakaaree ne da nga koy teral kooku mu ngi nax boppam waaw koy tegal bu ko teraanga mu ngi nax boppam mu ne nag ëllëg fii ci àddina nàmpal gi la dañ leen di nàmpal xeeti xéewal yépp yéen borom ndomba yi waaye àllaaxira lañ leen di feral yàlla taxawal leen yonent bi ne sa takunu nadaamatan yowmal qiyaama bu fekkee ne mate woo ko woon diñ ko rëccu yowmal qiyaama da nga ci rëccu bu mag ndax keroog lañ lay càmbar jullit ñeeg ñeneen ak ñi nga jiite woon ñëpp jël seeni àq ci yow ndéem ameel nga leen ay àq moo tax ki ñu wax mu xallaq dafa wax ne al al xirsu ala imaara huwa sababu fi iqtitaali naasi alayha xatta sufikati dimaa wastubihat al amwal wal furuj wa azuma al fasadu fi l ard nee ne xiir ci pouvoir xiir ci ndombal tànk ñu jiital la ci kanamu nit ñi ña tànn tan jiital la nee ne loolu mooy sabab léeg-léeg nit ñi di sa reyante mu jaral leen lu ne nee na ñu dem sa bay tuur deret tuur deret pour am nguur tuur deret ngir am ak pal mu ne itam ñuy sàkkoo dagan lu alali jàmbur maanaam yàq alal ju yàlla araamal alali jàmbur nga di ko yàq ci mbedd mi ngir la la ko digal wala yow ci sam jëmmi woppa nguur lay ut mbokki jullit yi bu leen kenn jaaral seen àllaaxira ku mu mën a doon doon na bokk ndey baay bu mu la doon te moo la jur nag sax bu mu la jaral sa àllaaxira say waajur buñ la digalee lu neexul yàlla bu ko def wa in jahadaaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma waaye nag wa saahibhuma fi dunya maarufan kon ku dul sa waajur alaa rawati kon bu leen topp kenn ci loo xam ne day yàq seen àllaaxira nee na nag ci bëgg nguur ak xiir ci nguur looloo tax nit ñi di ci reyante ba di tuur ay deret di tuuri deret nee ne di yàq alali jàmbur ba noppi di siif ay jigéen ngeen baal ma ci baat bi nee ne am yàq nag dal di màggal ci suuf te xam ngeen ne inna allaha laa yuhibbu almufsidin wala tabxi alfasada fi l ard inna allaha laa yuhibbu almufsidin dellul ci alquran fu ne yàlla nga fay condamné ñi nga xam ne ñooy yàq ci kaw suuf nee na bëgguma leen ku yàlla bëggul nag du la dugal ajjanaam yaa xam koy duggi waaye moom du la dugal ajjanaam koo bëgg ngay dugal àjjana waaye koo bëggul doo ko dugal ci sa yërmande doo ko dugal àjjana xanaa mu tu dellu ci li nga wax wala mu yërëm la te yërmandeem nag daf ca wax ne inna rahmati inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin yërmande yàlla jege na ñi nga xamee ne ñooy rafetal kon gaañ yi nañu ko rafetal bu leen kenn digal lu yàlla xaraamal ngeen di ko ca jàppale ibnu adham wax na ne azlamu zalimina li nafsihi man baaxa axiratahu li dunya xayrihi ki gën a mën a tooñ boppam ci nit ñi mooy ki jaay àllaaxiraam ngir addinay keneen boo koy jaay jaay ko ngi sa addina waaye addinay keneen keneen a toog fële sablalam di la digal ngay taal ak a yàq i tuuri dere sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nag man aana ala qatli muslimin walaw bi shatri kalima laqiya allaha yowma alqiyamati maktuban bayna al aynayhi bayna aynayhi ayisun min rahmatillah képp koo xam ne sa kaddu rek mu ne genn wàllu kàddu shatri kalima donte genn wàllu kaddu la moo dimbali ay nit ba ñu tuur dereti nit dereti julli nee na di nga dajeeg yàlla naagu ci yërmande maanaam bul xaar ko yàlla di la yërëm bon nañu xool suñuy kaddu ndax sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nit ki kat dina wax kàddu gu muy xeeb goo xam ne meram yàllaa nga ca laxasu te kàddu googa koy moo koy sóob ca biir sawara bu leen kenn def loolu xaram déedéet la taata li maxluqin fi masiyatil xaaliq amul benn mbindeef boo xam ne am na maxaama ñu topp ko ci mooy yàlla déedéet innama taatu fi lmaaruf toppa da nga toppe su lu njëkk la taata li man asallah amul genn ab topp guñ war a topp ku mooy yàlla suñu borom abu zar nag dafa doonoon nit ku baax koo xamee ne de ku ragaloon yàlla saaba bu teg moom ci boppam dafa wax ne qultu ya rasulallah ala tastaamilu nii ala tastaamilu nii qaala fa daraba bi yadihi ala mankibi summa qaala ya aba dhar innaka daif wa innaha amaana wa innaha yowma alqiyamati xizyun wa nadaama illa man axazaha bi xaqiha wa adda allazi alayhi fiha nee na Abu Zar yoneen bi daka tëgg ba tàyyi am na diine lool waaye wàllu wàllu jiite manu ci am na ay manqué manqué ndax dafa xaw a euh, am yu mu télé ci wàllu doxinu àddina ndax nee nañ passé na àddina ba da doon araamal sax nit kuy dajale alal ngir ëllëg kooku boo ko joxee loo xam ne dafa laal ci àddina dina ko négliger mu ne yow mu yonent bi sa alayhi wa sallam teg loxoom dama ko ne ndax doo ma takkal ndomba jox ma fonction mu teg loxoom ci sama mbagg dóor ma ne ma Abu Zar da nga néew doole maanaam da nga lotta manoo loolu am nga manqué manqué yu ne ci yow donte ragal na yàlla ci gaa yi yàlla yi la bokk waaye doyul mu nekk lii de kóllëre la responsabilité la te ëllëg yowmal xiyaama torox taange la torox taange xis yun wan a daama ak réccute waaye waxul ñëpp looloo tax nag ñu war kaa bàyyi noppa toppab joxañam waaw nee ne lu dul ki ko jël ci ak xam nga xam ne fi mu ko jaare dagan na ba jot ka lañu ko doon xaar mu def ka ca def na ka ca kooku daal moom xéewal la ci moom mu neeti ka yaa aba indi inni araaka daifa wa inni uxibu laka maa uxibu li nafsi laa taamaranna ala thnayni wala tawallayanna maa li yatim maa la nekk dama la bëggal li ma bëggal sama bopp seetlu naa ba gis ne wàllu jiitu ñu toppa la loolu manewoo ko am na manqué manqué yu ne ci yow kon ñaari nit sax bëgguma ñu daje jiital lay bu ko bu ko nangu wala ñu di la àttaloo nga di leen àtte bu ko nangu ala nag kon nag yoneen bi xamoon na li mu jiite kon ñu xam ne responsabilité la ñu ne nag alxisyu wan daama li man axasahu bi bi xayri xaqihi réccute ak toroxtaange ki ko jël ci lu dul àqam lay dal ëllëg yowmal xiyaama ak ki jël te mate ko maanaam ki ko matewul bu ko jëlee kooku dina rëcc yowmal xiyaama te dina torox ki nga xam ne mat na ko wóolu nañ ko mu jël ko ba noppi maanduwul man axasaha bi xaqiha dégg nga walam yaate ki ko jël ci àqam man ko waaye maanduwul ñépp d'accord nañ ne kii ay diplôme am ak xereñam ak lépp may na ko mu def ko waaye maanduwul nit ñi wóolu la jox la loolu nga ñëw di par parloo ak di jox say waasoog say mbokk ak nangam ak nangam kooku kooku ëllëg day torox ci àllaaxira la yonent bi sallallahu alayhi wasallam te dina réccu ka ca des nag mooy ki nga xam ne mat naka ba noppi ñu jox ko mu maandu loolu nag nee na nga ñaay lu mag la moo tax ci xadiisu zeyd ibn saabit mu wax ne ni'ma cheyu al imaara li man axazaha bi xaqiha wa xilliha wa bisa cheyu al imaara li man axazaha bi gayri xaqiha takunu alayhi xasratan yowma alqiyaama nee ne baax na lool neex na lool ab njiit ñu jox la pouvoir nga jël ko def ca lañu la sant nga maandu sa kon kooku day gañe àddinaam gañe àllaaxiram ak ki nga xamee ne nag da jot ci geneenuk anam mu ne kooku maalu sa wala matew ko mu ne kooku da koy jural njàqare yawmal qiyaama kon mbokki jullit ñi nañu bàyyi xel ne jiite yombul jiite yombul képp kuy jiite mbooloo na nga bàyyi xel yawmal qiyaam sallallahu alayhi wa wax na ka maa min amiri ashratin illaa wa yati yowma alqiyaamati maxluulan xatta yafukkahu al adlu aw yuubiqahu al jawr nee na amul kenn koo xam ne di nga jiite fukki nit jëm kaw fukki nit rek laa wax lu dul ne da ñëw yowmal xiyaama ñu jéng la mu ne sa maandu te moo mën na ñëw dindi jéng yi dama teg toj ka moom noonu rek moo mën a ñëw fecc jëng yooyu wala boog sa jéng moo moo lay sóob dal la alak kon ku ci si jox ak ndomba na ko respecte da nga mate ko boo ko matewul bu ko laaj am nañu ko mate woon laaj ko sang bi jox leen ko sallallahu alayhi wa sallam waaye ku ko matewul bu ko laaj bu si xër bu la jaral dara képp koo xam ne danga nga naan lu mu leen jaral jaral nu ko bu ko sànni lu kart ndax kooku kon jaral naka mu mooy yàlla taalab dëkk di ko uti kazalika ka nekk ca nguur moom itam noonu du ma wàcc lu leen jaral jaral nanu ko kookaat bu ko sànni lu kar noonu la toppal ki toppa yàlla wala tuti man axfalna qalbahu an dicrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta waa ju sàggane yàlla bu ko topp ki jëm ci yàlla topp ka kii def ak njub topp ka ku deful ak njub bu ko topp donte yéen a bokk ndey ak baay aboubacar wax na ne sallallahu alayhi wa sallam nee ne man wali man wuliya man waliya almuslimin fa amara alayhim ahadan muhaabatan fa alayhi laanatullahi dal na ci yàlla musal laa yaqbalu llahu minhu sarfan wala adlan xata yudxilahu jahannam nee na képp koo xam ne teg na lu la dara ngay tànnal sa bopp jiital ci kanamu nit yi nit koo xam ne par parloo moo tax nga jiital neexalaate moo tax nga jiital nee ne kooku de la mu ca teg moom doy na waar yonent bi moo wax ne kooku yàlla na rëbbam wàcc yàlla wàcc si moom ndax dafa waru dafa waru nee yàlla ko nangul farata du ko nangul naa mi naa fi la fekk dugalu ko jahannam ndeem tuubul ci loolu kon mbokki jullit ñi nañ koy male foofu ndax ak yi daf ci bari réew mi ku koy ut wala nguy ut li geneen ak ndomba jaar ko ci yoon te nga mate ko yuusufa alayhi salaatu wasalaam ba mu nattee boppam gis ne moom moo ko te bu ko bàyyee ñi ko ñoo koy jël da laaj rabbi ij'alni ala xazaini l ard inni xafizun alim loolu la yàlla jox ma wàllu koom ndax man ku mën a wottu laa te ku wóor laa maanaam ku am diine laa te am nag xarañte gu ma aare xarañte mooy aar ak ak maandute doomi Suayb lool la waxoon ca Moussa yaa abati stajirhu inna xayra man istajarta alqawiyul amin yow sama borom tànn ko liggéeyloo ko bind ki gën ci ki ngay bind mooy ki dëgër ca la ko jox al amin ki wóor te am diine te ragal yàlla kon kuy tànn tànnal kooku te bu kenn yóotu àddina mu jaral la sam réew bu kenn yóotu àddina mu jaral la leneen ndax ëllëg dañuy taxaw sa kanam borom ba subhaanahu mu càmbar ñu fay ku nekk ak xam ak yooye nag dégg ngeen ko sànq lu mu néew néew ci biir njaboot tiis na ëllëg waxuma laa nag yowmal xiyaam nga ameel ak ñoo xamee ne population bi lim la yaa woote nit ñi taal rey keneen ku ko def moo xam yaa nga ca nguur wala nekkoo ci nguur ku mu mën a doon nga jël say responsabilité da nga xam ne la nit ña di def sa mbedd ma bu boobaa yow da nga ci am ay responsabilité yu rëy nañu taxaw ngir aar sunu réew aar sunu diine aar sunuy jikko aar sunu lépp ku ci yóotu na nga yootu xool sa boppa ndax ma mate nga ko ñaareel bi ndax am nga maandu te xam ne bu ñu la ko joxee nga téye ko yal na nu yàlla defal jàmm defal nu sutura defal jàmm sunu réew yàlla aar nu aar sunu réew yàlla defal nu sutura boo xeer nu si boppam mu ngi jéggalu ñëpp yàlla na sama borom ba nangul ñu aaral nu sunu xalifa ak xalifa yu fi am yëpp yàlla defal nu jàmm def ko ci réew mi ba allahumma salli ala